Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu balu ñu jégal bu mel ni kii ñëwaanuñu ak yéen seen émission bi ñu tuddee jotaayu xam-xam te tey ñu indi benn tomb boo xam ne tomb bu mat a jàngat la waaye tim tomb bu mat a fàttali la eh, muy tomb bi ñu tuddee Eidul Adha al Mubarak muy feetu tabaski bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko barkeel bu ñu nee tabaski nag dem ci yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wasalaam bu ñu nee tabaski xel dem ci Ismaayil waaye bu ñu nee tabaski tamit xel dem ci Hajara lu tax loolu mooy <clears throat> yàlla dafa wàcc woon ci seen kaw ñoom ñett natt bu diis ñu accepté natt bi nangu ko dundeeku ci anam bi dëpp yàlla subhaanahu wa taala gërëm yi muy ndam loo xam ne duutul fay ba ilal abat ba faw lu leen may nag lu leen may nag ñu mën a accepté nattu bi dunde ak natt bi dunde ak natt bi ci anam bi dëpp nu yàlla subhanahu wa taala gërëm yi li ko may mooy ibrahima alayhi salaatu wasalaam dafay jëma joo xam ne yàlla daf ko teel na may am xel wala qad aatana ibrahima rushdahu min qablu dafa fexe woon ba moom ibrahima mu mën ak boppam gis nga nit su mën ak boppam pour mu mën ak boromam daf koy yomb su mën ak boromam tim pour mu mën ak ay moromam tim daf koy yomb ibrahima loolu la fexoon ba def ko ci boppam ba installé ko ci boppam lu mu defoon ci boppam tim loolu la defoon ci doomam mooy Ismaayil def ko tim ci soxna muy Hajara moo tax ba nattu bi yàlla wàccee seen kaw ñoom ñett ñu mën koo dékku dundee natt bi ci anam bi dëpp yàlla subhaanahu wa taala gërëm yi ba lu dul jafe natt bi nag ba yàlla yurndoo seen xol gis na ne ñii lim leen nattu diis na te tiis na métti na waaye pare nañ pour dund ko pare nañ pour jafe bi dëpp ni mu ko bëggee moom yàlla subhaanahu wa taala la yàlla wax ne wa fadaynaahu bi dibhin azim wa fadaynaahu bi dibhin azim jotee nañu Ismaayil wala Isxaaqa am kuy mu mag parce que Ibrahima moom li muy rendi lépp jàppoon na Ismaayil lay rendi ba mu rendee ba noppi siggi di sant yàlla subhanahu wa ci jëfe ndigal gim jëfe ndigal yàlla subhanahu wa la xippi ay batam xool gis na ne rendiwul Ismaayil mais am kuy la rendi la xool gis Ismaayil ci wetam mu sant yàlla bu baaxaat ci loolu mu mel ni bu ne am kuy nag xel day laaj kuyul lan kuyul xarlaam ndax wala kuyul béy la wala kuyul nag la ndax ñoom ñett ci la ñuy xoolee kuy ndax addibhu moo koy tekki parce que ren di liñ koy def mooy xar ak bay ak nekk wal baqarul amraani fiha mu'tadil nag moom danañ ko def ñaar yëpp danañ ko rendi comme danañ ko locc gële moom wa taanu fi labbati naxrun fi l ibil giléem moom dañ koy locc kenn du ko rey moo tax kuy googu kuy boobu duñ ci xool giléem donte nag lislaam moom diine ju nekk mooy diine lislaam bu ñu xoole al ajnaasu al arbaa ñeenti xeet yi nga xam ne lislaam daf na koy tabaski benn nga tabaski ci ñeenti xeet yooyu daf ci boole giléem xeet ñeenti xeet la lislaam wax ne kuy tabaski ne kuy ne benn nga tabaski benn ci ñeenti xeet yooyu ñeenti xeet yooyu benn bi ci jiitu mooy am xar xar ñett la soo ko amul nga bay béy tim ñett la soo ko amul nga wët nag nag tim nekk ñett soo ko amul tim nga wët gileem gileem tim nekk ñett moo tax shaayir bi ne afdalu adda anun fa maasun fa baqar fa ibilun niama saminu wa dakar li ci li ñuy tabaski mooy am xar soo ko amul nga wët aw béy soo ko amul nga aw nag soo ko amul nga wët gileem bu dee ci wàllu tabaski am maanaam bu doon ci wàllu hadiyu gilem la ñuy gën a sopp teg ci nag teg ci xar teg ci gilem bu mel ne xar boobu nga xam ne moom la ñuy tabaskee bu dee ci xar la dañuy sàtt ci xar mi dañuy bëgg ci xar mi na am at na am am at mat sëkk bu dee ci béy la dañ ciy sàtt na am at ci atam ñaareel ma bu ci nag la dañ ciy sàtt na am at na am ñetti at ba dugg ci atam ñeenteel ma wa daaxilun fi arbain min al baqar bu dee ci gilem la dañ ciy sàtt na am juróom-benn at ba dugg ci atam juróom-ñaareel ma wala ibadu fi sitti sinina qad xabar kon euh, yooyu ay charte la yoo xam ne nii wala ay mbir la yoo xam ne nii ki pare pour tabaski am xar war na ko bàyyi xel wala ki pare pour tabaski aw baytim war na ko bàyyi xel wala ki pare tim pour tabaski aw nagtim war na ko bàyyi xel wala ki pare ki pare tim pour tabaski euh, gëlëm te war na ko bàyyi xel mel ni que nag kuy xar yu ñu rey euh, dañ ci dañuy bëgg xar mi ci boppam bu dee am xar la dañu woon xar la xar mi lislaam gën a bëgg kuy tabaski nga tabaski ko mooy am kuuy am kuuy mooy xar moo xam ne nii mi ngi am ngóoraam soo ko amul nga wut lu ñu tudde alxisra wut mooy xar mu ñu tàpp mooy xar moo xam ne dañoo dindi ak ngóoraam wala ak dafa dañ wala dafa judd wala moom judd wàlluwul ak ngóora moom ñu tudde alxisra mooy xar mu ñu soo amul am kuuy xar moom nga wut soo amul lu ñu xar mu ñu am euh, am tàppaanga nga wut xar mu ñu tuddee xar jigéen soo amul xar mu jigéen nag ci ngay soog di ñëwee ci bëy gis nga xar mu jigéen li mu nuru lu doy di moo gën a moom la lislaam gën moom la lislaam jiital wala moom la foxaaw yi jiital ci ka béy ci ka béyu béyu góor mag soo amul xar mu jigéen nag ci ngay soog di ñëwee ci béy kuuyil béy soo ko amul nga ñëw euh, nga ñëw ci bay wu ñu tàpp soo ko amul nga ñëw ci béy wu jigéen soo ko nga dem ci nag comme noonu euh, kuuyil nag soo ko amul nga ñëw ci nag wu ñu tàpp soo ko amul nga dem ci nag wu jigéen ba ci gëlëm tim comme noonu. mel nekk nag xar nga xam ne moom la ñu bëgg tabaski wala bay yi wala nag yi wala gëlëm dañ ciy bëgg na nekk loo xam ne nii dafay mucc min al uyub al mani al maniat min al ijza maanaam xeeti sikkaange yi nga xam ne bu nee ci xar wala bu nee ci bëy wala bu nee ci nag wala bu nee ci gëlëm mën na koo tee doy yooyu booy xool fukki sikk la ak ñett mooy fukki ay la ak ñett bëgg nañ tamit nit ki buy pare pour tabaski mu bàyyi xel lool ñetti maanaam fukki sikk yu ak ñett ci lim na ma tabaski fukki sikk fukki sikk yu ak ñett bu ñu koy xool dañuy gis ne eh, am na sikk bu ñu tuddee al ak ndof loolu bëgguñ ki ci jur gi ñuy tabaski bu fekkee da ngay ak jur te jur gi ngay tabaski nga génne nga gis ne li ñu tuddee ak ndof mi ngi ci moom maanaam xar mu dof wala béy wu dof wala nag wu dof wala gëlëm gu dof kenn ko tabaski bu ñu nee dof nag mooy faqdu tamis mooy xar moo xam ne nii wala béy woo xam ne nii wala nag woo xam ne wala gëlëm goo xam ne boo ko xoolee xam ne ni kii nekkul ci ni muy def ni muy defee rek ci ngay xam ne ni kii àndugut ak sagom béy wu mel noonu wala xar mu mel noonu wala nag wu mel noonu wala gëlëm gu mel noonu kenn du ko tabaski kon al junun ndof xeet la ci xeeti si kii bokk na ci xeetu sikki itam muy fukki sikk ak ñett eh, bokk na ci xeetu sikki yooyu lu ñu tuddee albakamte mooy muuma xar moo xam dafa muuma mooy xar moo xam ne ni laa sawta laha aslan maanaam mënul meem mënul meem xar mu munta meem kenn du ko tabaskee matul tabaski bu dee ci baytam noonu la bu dee ci nag tam noonu la bu dee ci gëlëm tam noonu la muy ñaari sikk ñetteel bi ci sikk yi nga xam ne buñ ko gisee ci jur gi ñu du mat tabaski mooy li ñu tuddee al araj te mooy xar moo xam ne wala bëy woo xam ne wala nag woo xam ne wala gëléem goo xam ne la tastati an tasira ma am saliha maanaam bu doxee ak ay moromam boo ko séenee muy dox rek da ngay xam ne ni muy doxee maanaam euh, day day soox moo tax muy doxee nii su sooxutoon dana doxee neneen wuute nii xar moo xam ne buy dox ci ni muy doxee rek ci nga xamee ci ngay xamee ne kii day soox xar moomu maanaam xar muy soox matul tabaski laa bëgg wax ci gàttal bokk na ci sikk yi nga xam ne boo ko gisee ci jur gi nga ne ma tabaski da xam ne ne jur gi matul tabaski mooy li ñu tuddee al awar ñu tuddee ak pat maanaam xar mu pat mooy xar moo xam ne nii benn bët bi gisul benn bët bi mooy gis waaye benn bi gisul xar moomu matul tabaski bu ñu nee xar mu pat nag kon da nga ciy dégg nag xar mu gumu moom taxul ñuy wax. Eh, bokk na ci sikk yi nga xam ne bu nee ci jur gi ñu tabaski du doy du mat tabaski mooy nu tuddee al bacham eh, bacham maanaam sikk la mooy ñu tuddee mat mooy fër. mooy xar mooy jur goo xam ne boo koy xool maanaam euh, dafa sol ci biiram lu ëpp lum ci lu mu daan lu sol ci biiram dafa sol ci biiram lu ëpp lu mu daan sol ci biiram ba loolu yóbbee ko tey maanaam am na mel jurgo googu noonu fii tel que xaala dañ koy jàppee dañ koy atte atteb jur tawat maanaam jur googu ci jamono jooju noonu dañ koy jàpp dañ koy atte atteb jur gu tawat ba tax na kon xar mu fër wala bëy wu fër wala nag wu fër wala gëlëm gu fër kenn du ko tabaski bokk na ci sikkiitim lu ñu tuddee almarat mooy feebar tawat xar moo xam dafa tawat boo ko xoolee gis xam ko ci moom wala bëy wi wala nag wi wala gëlëm gi jur gu ko matul tabaski wala sikk bi ñu tuddee albaxart mooy euh, mooy xasawu gémmiñ loolu day am ci lenn ci jur yi loolu nag lee doon jàngoro lay doon ci ñoom ñaare jàngoro lee doon ci bi ci seen biiri mbaax euh, di def saaru air buy génn di jaar ci gémmiñ gi bu fekkee dafa xasaw gi dafa fes ba jéggi dayoo jur googu noonu matul tabaski kenn du tabaski bokk na ci xeeti sikki yi nga xam ne tamit ko gis ci jur gi nga ne ma tabaski xam na xamal na jur gu matul tabaski mooy li ñu tuddee te mooy eh, njaddi njaddi mooy moo xam ne bu ñu ko xoolee dañuy gis ne dañoo dagg geen bi yëpp maanaam geen ba dafa dagg commencé ci fam saxee la dagg wala boo xar moo xam ne ni ziaba aktar sanab da ëpp ci geen dafa dem xar ma tamit dañuy wax ne wala jur gu ko tamit dañuy wax ne matul tabaski na ci yi nga xam ne bu ko gisee ci jur gi ñu ne ma tabaski gis ne jur gi matul tabaski mooy li ñu tuddee aljarab te mooy ràmma xar wi wala bëy wi wala nag wi wala gëlëm gi su fekkee dañoo gis ci moom ak ràmm wax xool gis ko ñoom ku xool xam ko ndax lu tax dafa fees ba tey xar moomu walla jurgo googu matul tabaski ba tey tam am na ñu tuddee al azilatu te mooy xar mu woom wala jur woom ba boo ko xoolee xam ko ci moom ndax lu tax woom gi mu woom dafa fees dafa feeñ ba boo ko xoolee rek xam ko ci moom ba tey jurgo googu matul tabaski ba tey tam bokk ci jur nga xam ne sikki nga xam ne jur gum nekk dañuy wax ne jur gu matul tabaski bu fekkee na xar mu jigéen ngay tabaskee te xar mu ñu xool gis ne yan yanaat bi dafa wow koŋ ba mun a génnee am soow sax ba tey xar moom itam kenn du ko tabaskee wala jur ko ba tey kenn du ko tabaskee bokk na ci tim jur yi nga xam ne kenn du leen tabaskee lu ñu tuddee zaatu ummin wahshiya mooy xar moo xam ne kéwal gu góor xar mu jigéen mu kéwal gu góor tëb mu am ca doom doom ju jul moom ñu tuddee zaatu ummin wahshiya wala xar mu góor mu tëb kéwal gu jigéen mu am ca doom doom juju mën tuddee zaatu mun waxshiya doom juju kenn maanaam jur googu noonu matul tabaski daat zaatu xarnul yet mi wala bokk na ci sikki itam ba tey muy fukki sikki ak ñett bokk na ci fukki sikki ak ñett sikki yi nga xam ne ko gis ci jur nga ne ma tabaski da ngay xam ne jur gi matul tabaski mooy jur goo xam ne nii béjjin bi day nàcc béjjin bi day nàcc ba noppi boole ko ak deret ji mënees ko ba noppi boole ko ak deret ji mënees ko arrêté fekk mi ngi nàcc sax ba noppi ñu mën a arrêté deret ji su ma ko tee doy wala boog jur goo xam ne béj mi dafa damma yi génnee deret nekk gën génn góombu métti ba te tim jur googu matul tabaski kon yi ay sikkala yoo xam ne nii eh, ci jur gi na ma tabaski nañ ci bàyyi xel bu baax a baax fukki sikkala ñett yoo xam ne nii képp koo xam ne ma nga tabaski na nga fexe ba bàyyi xel ci jur gi nga na ma tabaski sikki yi parce que ay sikkala yoo xam ne nii soo ko gisee ci jur nga jënd ko tabaskee ko am nga yàpp tabaski am nga yàpp ñam waaye amoo yàpp tabaski am nga yàpp ñam waaye amoo yàpp tabaski yàpp ñam ak yàpp tabaski yàpp ñam ak yàpp tabaski lan ma leen wut la mooy l'islam dafa am ay critères ay chartes yu mu teg ne xar mu mel nii wala jur gu mel nii mooy doy ci tabaski la ngay tabaskee nag boo amee benn charte bu xët charte yooyu noonu su boobaa am nga yàpp ñam waaye amoo yàpp tabaski su fekkee ne nag la ngay tabaski amul benn maa amul benn charte bu ci xëtt charte yi nga xam ne moom la l'islam tëral ci ci jur gi nga xam ne moom la ñu war a tabaski charte yëpp daje na ci ndax lu tax yii ñu waxoon yëpp amul benn sikki bu ci am kon suba am nga yàpp tabaski am nga yàpp tabaski kon yàpp tabaski ak yàpp ñam euh, du ñu benn yàpp tabaski yaa ngi koy amee rek ci nga fexe ba critère charte yi nga xam ne lislaam nee na la xar su mel nii mooy tax mu mat tabaski sam xar mat ko su boobaa am nga yàpp tabaski waaye su fekkee ne dana xar su amee sikki yi matul tabaski ba nopp nga gis benn sikk wala lenn ci ay sikk wala sikk yëpp nga gis ko ci xar wala ci jur gi nga ne ma tabaski xam ne boo tabaskee jur googu tamit am nga yàpp ñam waaye amoo yàpp tabaski mu mel ni ki Euh, loolu mat na bàyyi xel bu baax euh, dañuy gis tam ci tabaski euh, nit ñi bu ñuy rendi mel ne dañuy xaw am problème ci ni ñuy rendee rendi lu yomb la rendi mag mën na ko def comme gone goo xam ni mu may yiis nga maanaam ràññee nga mën nga ko def jigéen sax mën a rendi wala tamit maratu jaayis jigéen mën a rendi su kaw ci kaw su xamee ni ñu rendee lan mooy rendi rendi mooy chat chatu zakati xatul ulqum mooy da ngay dag mooy dagg baat bi te jaaree ko ci kanam dagg baat bi te jaaree ko ci kanam te nga fexe ba banga nga commencé dagg ba fi ngay daggee ñaari siri yi nga xam ne ñoo seq baat bi doo fi yëkkati sa loxo soo ko defee ak jumtukaay boo xam ne jumtukaay bu ñaw la lu mel ni ki paak wala leneen su waa loolu nga def moom lu ñu tuddee ak rendi loolu nga def moom lu ñu tuddee ak rendi kon boo daggee nag li ngay dagg maanaam boo rendee li ngay rendi te jaaree wu ko ci baat bi ci kanam baat bi waaw da nga ko jaaree ci kaw doq ci doq ga wala ci wàllu dox gi suba la nga def kenn du ko tudde ak ren ba tax na lislam dafa naan lam tukkal def ko lekk kon kuy ren di bëggal ngay ren ñu lekk ko da koy jaare ci kanam baat bi mooy ci ci ci gi nga koy jaare daggale ngay dagg ba egsi ci ñaari si di ñu tudde al wada jay ne nga daggaale ko ba egsi si ñu tudde al wada jay nga daggaale ko soo ko daggee te fekk ne yëkkati woo sa loxo ci biir rend gi suba loolu nga def ñu tuddee euh, ak dakaatu mooy ak rend ba tax na kon ñu ñaan yàlla subhanahu wa defal ñu dégg ak topp te tabaski ñu dégg mal ñu ñu excité alhamdu bismillahi rahmaani ko alhamdulillahi rabbil alamin jeexal ko alhamdulillahi rabbil alamin te lépp dafa ngërëmal yàlla subhanahu wa taala wa aaxiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa la hawla wala mbokk yi mu mel ni kii am fi ay laaj laaj bi ñu njëkk gis mooy kii dafay laaj ndax mënees naa bokk am xar tabaski ko wala déet mënees naa bokk am xar ko wala ak jur mënees na ko bokk tabaski ko wala déet dafa am lu fuqaaw yi wax fuqaaw yi dañuy wax ne wa jaaza tashriku xaribin in sakan fil ajri maahu fil iyaal wal mu an maanaam dagan na bokk yool bokk yool dagan na waaye bokk moomeel daganut maanaam li ma bëgg wax mooy daganut ñun ñeenti nit ma joxe vingt cinq mille nga joxe vingt cinq mille kii joxe vingt cinq mille kii joxe vingt cinq mille ñu dajal ko muy cent mille jënd am xar tabaski loolu lislaam nangu waaye lislaam nangu na man ma am sama cent mille bopp jënd am xar tabaski tabaski ci yéen a waale leen ci pare pour tabaski yéene wàale leen ci su boobaa da ngeen am yoolub tabaski yoolub tabaski ko man ni ma ko amee kon bokkug moomeel dagan na maanaam bokkug yool dagan na laa bëgg wax waaye bokkug moomeel daganut kon laaj boobu loolu ñu ci tontu laaj ñaare bitim mooy dafay laaj ndax euh, xar tabaski mënees na ko amee ci euh, li ñuy def sa maanaam loterie ba gagné ko ndax loolu mënees na ko ci am mënees na ci tabaski wala déet waaw mënees na ci am xaram tabaski mais du doy mënees na amee xaram tabaski mais du tax mu doy waaw du tax mu doy ndax tabaski dafa nekk loo xam ne tayib la tayib lu la war a lu sell la war a doon ndax inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayib yàlla dafa sell tey du nangu lu dul sell maanaam loolu laa bëgg wax ku ci amam xar euh, tabaski ko tim du tax nga am yàpp tabaski am nga nag yàpp ñam waaye amul yàpp tabaski waaw ndax booy xool carte sar carte la rek te lislaam dafay ay carte <laughs> kii dafay laaj euh, ndax jigéen mën na rendi waaw jigéen mën na rendi ci kaw bu fekkee xam ne ni ñu rendee jigéen mën wa dabul maratu jaizun rendu jigéen dagan na ci kaw boo xamee ni ñu rendee loolu kon euh, laaj wu lu nañ ci tantu kii itam mi ngi laaj euh, maanaam euh, xar mi ñuy rendi ci ban façon maanaam na lañ ko war a rendee na lañ ko war a rendee xar mi ñuy rendi ni ñu koy rendee mooy dañ koy tëral ak wàllu càmmoñam jubale ko penku ki koy rey tiim ko ñu ñaddal ko ko mu wax bismillah allahu akbar allahumma taqabbal minna rey te buy reyti mu commencé ci baat bi baat bi ci kanam lay commencé di dagg di dagg ba daggaale ñaari sidi yi nga xam ne ñoo seq baat bi te ba mu commencé dagg ba fi muy daggee ñaari sidi yi nga xam ne ñoo seq baat bi yëkkatuwu fi loxoom yëkkatuwu fi loxoom foofu xay duñ fi indi ay détails yu sew su fekkee dafa dagg bi ci biir mu yëkkati loxoom gannaaw muy dellu si waat loxoom jekkale la mu rey kenn ko lekk moo tax dañu bëgg nit ki buy rendi mu préparé boppam préparé tamit li muy rendi jumtukaay bu ñaw nga ne bu commencé dagg ba ker muy dagg ñaari sidit di du fi yëkkati loxoom su fekkee nag dafa commencé doon dagg bi ci biir paaka bi rot te tayu ko wala boog loxo mi nagam mu paaka bi rot te tayu ko mu gaaw jëlaat paaka bi delloowaat ko ci lam doon rendee àggale lam doon rendi ba tey loolu fuqaaw yi am nañu ko nangu nekk euh, mënees na ko lekk kii lay laaj ndax euh, day gis des fois nit di rendi ba dagg lépp maanaam maanaam tàggale bopp bi ak jëmm ji ndax loolu l'islam gërëm na ko wala gërëm ko ndax ak jur guñ ko def ndax ko lekk wala mën su ko lekk waaye dañuy wax ne rendi moom comme niñ ko waxee sànq rek maanaam liñ bëgg ci rendi mooy nga defee ko noonu ñu ko waxee boo dee ba dagg ñaari si yi nga ne ñoo seq baat bi nga yem foofu waaye rendi ba tàqale bopp bi ak jëmm ji moom loolu ku ko def moom asaame wa tuukal lim def ñaaw na lool waaye teewul des na ko lekk nag lim def ñaaw na lool waaye teewul des na ko lekk waaw tax na kon loolu loolu tamit mat na bàyyi xel Euh, kon loolu euh, lan la ci ay laaj yoo xam ne dafay dafay retom euh, laaj bi ñu mujj mooy kii dafay wax ne ndax kii ren di dana wax bismillahi rahmaani rahim wala déet ak bu fekkee ne waxu ko lan mooy lan mooy abaatim waaw kii rey li ñu bëgg mooy na wax bismillah allahu akbar allahuma taqbal minna mais bum mu wax arrahmaan rahim bu mu jullitam ci yonent bi salaa sallam kii rey na wax bismillah rek yem ci bismillah teg ci allahu akbar allahuma taqabal minna yàlla yàlla ngi nangul mais bu mu egg ci bismillahi arrahmaani rahim jërul ma ko ci tuddwaale jëreti muy julli ci yonent bi salaa sallam ba te tamit su fekkee ne dafa rey rek yem ci bismillah te jàllul ci allahu akbar allahuma taqabal minna ba tey du tee lam rey baax na mënees na ko lekk dana doy euh, léegi mu des na ki nga xam ne mu mat footu mat na leer ndax ki fàtte wax bismillah ki doon rey fàtte wax bismillah ba tey tam teewul bu reyee moom it des na ko lekk wuute wuuteeg nag lool ki nga xam ne fàttiwul wax bismillah waa moom moo tey bàyyi bismillah kooku fuqaaw yi bu ñu xoolee euh, jumhurul ulama ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne kii rey bañ a wax bismillah te tey ko lam rey kenn du ko lekk lu ëpp ci borom xam-xam yi ñu saxal mel ni kon loolu moom fi di dikkal ci ay laaj ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla taxawu leen te taxawuñu mel ni ku ci am ay laaj yoo bëgg kii rek mën nga koo jaarale ci kii bi commentaire incha allahu taala buñ ko gisee danañ ci tontu wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa